وزوجة سالات تعين فلا تخاول بريا معين واسبلا في ذلك أبد هل يا ما جلت علي عيش مد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbok juliti mbok talibé mbok téléspectateur Mourid 24. Sen mbok talibé soxna jama balé mo ñëwaat ak yeen ci sen émission bu mag bi ñuy wax kaddu soxna yi. Kaddu soxna yi nak buñ ko waxé dafa am lu bëré bëré lo xam mo ko undu. Bi ci jitu nak moy ci biir kër yi. Naka lañ wara dundé ci biir kër yi. Digënté jëkkër ak soxnaam diggante yaay ak doom diggante dëkkandoor sax ak moroomu dëkkandooram mbokku taalibe duñ ci yem dinañ dem ba ci société bi ngir xool jigéen ñi ana naka lañ ci taxawee kon nag fan lay amee fii ci Mouride 24 ci télé bu mag bi kañ lay am nag mercredi 16h semaine bu jot incha allah rabbi ngeen cekk ànd ak seen mbokk taalibe wasalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu وزوجة سالات تعين فلا تخاول بريا معين واسبلا في ذلك أبد هل يا ما جملة علي عيش مد